rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi ginnaaw ba ñu santee borom bi dëggi dëggi sant julli ci sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbooloo mi waaye bu ñuy nuyu mbooloo bi dañuy teg nuyoo bépp ci loxo suñu sëriñ sëriñ maam Thierno Birahim Mbacke di suñu sëriñ ci biir di suñu sëriñ ci biti moom ba mu teewee rek la ñu yëg ni ñu li ñu bëggoon am nañ ko jotaay bi réussir na mu ñëw ci diggalu sëriñ bi di xalifa bi macha allah ñu ñaan yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér li ko alxaaji Idrissa waxal sànq ba ñu jaaree ca université ba ni mu ngi ñaanal suñu. sëriñ sëriñ Muntaxa Mbàkke naal yu rëy yii mu naal yal na yàlla dogal lépp yegg ci kanamam mu inauguré ko ñu teew dund ak ñun at yu baree baree baree baree ndax moom dundam la maamam ju baax ja waxoon rek ni nit dangay ngay fexe ba bokk ci ñi nga xam ne bu leen tuddee dan daan za nafain bi dararin dund sëriñ Muntaxa noonu la mel ci ñun taxawaayam it noonu la mel kon bu ñu amee chance ak xéewal gu toll ni am jotaay bu toll nii njabootam doomam di léppam mu yebal ko fi wax dëgg yàlla ñun de suñu xol sedd na sedd na guy sëriñ bi suñu paree ci nuyoom doon na dooy sëkk sax wax dëgg yàlla ñu bañ a tuddaat keneen ci nuyoo ndax moom matale na nuyoo yépp waaye alxaaji idrissa mi nga xamante ni moo jiite COSAPO alquran day wax ni tanazzalul malaaikatu war fii fiiha xam naa ni dina jaadu ñu nuyu ko ziyaar ko bu ñu tuddee alxaaji idrissa nag tudd nañ COSAPO yépp COSAPO di coordination sénégalaise de acteurs di pèlerinage et de la omra moom alxaaji idrissa di président bi bu teewee te ñu xam ni ñi ci salle bi ñii mu toogandool ñëpp ay membre lañu ci ko COSAPO kon dina doy sëkk ñu buñ ko tuddee mu yóbbaale géew ñëpp moo xam ku ci vice président ku ci jiite commission ku ci yor responsabilité bu mu mën a doon nuyu nañ la ziar nañ la teg seen nuyu ak seen ziar ci loxo alxaaji Idrissa jotaay bi nag macha allahu dañu wax ni bëgguñu mu yàgg torop xam nañu bu baax sëriñ bi xéer gi mu xéer ci njaboot suñu fi nekkoon di ko fi téye ba guddeet du dem ndax xir ci njaboot waaye ñun ñoo bëgg di leen sakkanal lu ngeen ñu jox ci ay simili sax doy na waxuma la ak waxtu ni ñu tërale jotaay bi mooy am na ay kàddu yu ñu fi bëgg a jotal kàddu yi ñu fi bëgg a jotal dañu ciy jiital bu imam Mouhsin Diop lan moo tax ñu war a jox imam Mouhsin ci jotaay bi te président jëlagul kàddu muy alxaaji Idrissa c'est parce que loo gis dafay am bunt yàlla dogal na ñun ñëpp miin nañu Touba xam nañu Touba waaye COSAPO membre yi ñu am ci biir Touba de bunt bi mooy alxaaji Muhsin Diop kenn ku ne xam digganteem ak Serigne Moulay ñu ziyaare ko bu baax waaye kenn ku ne xam digganteem ak Serigne Khadim Dia ku ne xam digganteem ak Imam Mukhtar waaye kenn ku ne xam digganteem ak docteur Moustapha kon jaadu na bu ñu ñëwee mu dalalal ñu ju ubbil ñu jotaay bi ci ay nuyoo ak ay cant jëmale ko ci jëmm yu tedd yooyu suñu paree ci moom kàddu yi ci war a tegu insha allah dinañ ko ci teg nag nag ba jotaay bi yegg waaye dañu gëm ni jotaay bi yëpp mën na bañ a weesu fanweeri minute insha allah billahi as-sami'il alim min ash-shaytan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ngeen baal ma rekk ma nuyu sunu sëriñ ñun ñépp di sëriñ Muntaqa Basiru Mbàkke ndax nuyoo boo xam ne lu jiitu sama làmmiñ di ko tudd sama xol ko tudd ngir sopp ko dama sopp sëriñ bi li tax ma wax ko mooy tabassumam dafay dalal xel dafay dalal roox maanaam muuñu sëriñ bi yaakaaru moo tax ba ñu tàmbalee takk masque rekk sama yaram daw saa yu ko gisee mu muuñ rek sa ruux dund yàlla na ko fi yàlla yàggal te guddal fanam maa ngi koy nuyu sama nuyoowu biir bu làmboo yi ca si yépp nuyoo mbooloo mi nag dama koy bàyyi kañ laa ji Idrissa ba ci agsi sànq rekk ba ma joxanteeg moom loxo ci jumaa ji maa ngi gis mu takk masque bi may wax ci sama ruux sama xol yàlla na ko tekki waaye ñu tàllal ko loxo mu ñaan bay àggal dindi masque bi rek mën a yaakaar am na Alaaji Idrissa mbas mi dina dem li ñu doon wut si am nañu ko kon sëñ maam Thierno ñu ngi lay nuyu di la ziar sunu nga fekkente nañu fële ca marok Alaaji mu lay jàpp na sama loxo yóbbu ca Colobane ca kër sëñ Touba ba présentement la yàlla yàlla fay yiw yàlla yàlla sàmbal xam naa ngeen baal moom gannaaw ba mënuyoo ñëpp ziyaar ñëpp xam naa kalimatu sukri ak tarxib rek la woon ndax mbokk yi dañ ne ma ah dañ ma bañ sax ba di ma tuddee borom Touba ma ne ko ëpp naa wax ñu ne ma yaa miin Touba mbokk yi sàkk woon rek ma ubbi nuyu dalal sunu mbokk yi ndax waatul buyuta min abwaabiha gannaaw ba ma ci sëriñ bi joxee yu euh, alaaji Mulaay lay tàmbale xam nga dañu tudd COSAPO ya ca aji wàll woowu du ma ci dugg ndax euh, sëñ euh, Idrissa da ci ñëw mais li boole sunu mbokk ñoom Mulaay ci COSAPO rek lay lay junju bàyyi programme bi wéy ndax li ma dégg léegi ki yore protocole bi wax ne bëgguñu mu weesu 30 minutes COSAPO ma nga sosoo ca Arabie Saoudite détails yu dañ ci ñëw ak moom ñaar xalaat ci walla ñett mu nekk seen biir xol ay at ñu di ko topp man itam ma toog jëmmi jamono yi fi nekk sama bopp bi ma tàmbale doon ci waxtaane ak ay nit ba waxtaan ci ay kilifa yu bari ci délégation muy professeur Abdoul Aziz Kébé ak sunu mbokk woo xam ne waroon nañu ko tudd ca ba ñuy tàmbale di docteur Khadim Silla mu jox ñu ci ay orientation yu bari ne ma aj bi war ngeen ko dox man daal dama xëy rekk alaaji Idrissa woo ma ne ma daal jaadu dañu doomu daara yi ñu ñu ñu joyante aj bi ndax mi nga yàqu ma ne ko yàlla xam na ni loolu moo nekk sama yitte fan yii yépp ma tàmbali koy dox jarul sax nga may laaj bokk naa ci xalaat bi mu ne ma ku ñuy wax Abdul Fatah sàll dina la ci woo bu doomu Cheikh Abbas Sall bu Louga ñu woote ñu waxtaan daje ne ku am kilifa doog a ko ci mbedd ñu sol sunu daal rek dem waxtaan ak kilifa yu mag yi ca délégation ku mel ni professeur Abdou Aziz Karim mu rafetlu ko lool ne xalaat leen ci te ba mu yàgg fa ñu toog sax la ñu génn rek sama ruux daj alaaji Idrissa bii ma ne ko li ma gis daal. mooy jàpp naa ni yaa walla a jiite mbooloo mi kenn sexaluma sukkar maa ko yëg gestu yem ci Abdul Fattah sàll ne ko jàpp naa ne yaa walla nekk secretaire général bi ñoom ñu joxoñ ma ñoom ñaar ne kon yaay trésorier général bi bureau bi mat nii la yëf yi ñu tàmbale nag di dox di woo ñi ñu bokkal pas-pas ak ñi ñu bokkal fu ñu jëm ak ñi bokk ñu ñu bokkal kilifa mooy sunu waajuri tedd yi ci gàttal loolu tamit la woon bii tax ñu xam lan mooy COSAPRO ak li ko sos bañ ma ko waxee nag ma ne man nag dinaa tàmbalee tànn ñi ma jàpp ne am nañu kilifa te duñu yàqal suñu liggéey ma sama xel dem ci oustaz Abdoulaye Gueye bu 2S pourtant mook alaaji Idrissa ñoo bokk ndey ak baay di mais man maa ko woo mu ñëw mu ne bu ma Idrissa woon du ma bokk waaye yow danaa bokk ndax xamante nañu waxin la rek sama xel dem ci al imaam Abdul Aziz Mbay bu góor gi Njaase Mbay mun naa ko waxee noonu bu Cees mu ne bokk naa ko yow xalaat wi ñëw sama xel dem ci al imaam Babacar Ñang di boroom xam-xam daanaka di muqaddam di genn wàllu sëñ Maodo si mu ne xalaat bi yitteel na ma waaye comme dañ nekk ci pénc wolof boo tànnee ay nit ñu ne ñu tiwaawan la dëkk ñu ne waaw xanaa yëfi yëfi tiijaan la ma ne déedéet man de den nag sama benn tànk ma nga Touba ndax ku tudd góor gi ñaan jóob ma bokk fa sama maam la ma woo Alaaji Mulaay wax ko fikra bi mu ne ma man duma laajte màkk yow yàgg nañ depuis 2015 ñuy ànd ci màkk gi ba tey kon foo dugg foofu la foo joxoñ foofu la ma xam nag ni itam ku dugg Touba foofu nga jaar ci buntu ba ma jël sama téléphone woo sëñ Maxtaar Seck mi nga xam ni daanaka moo sëriñ bi daanaka tabarakallahu du ñuy réeru ci lu bari ci wàllu màkk gi waaye li may miin yëpp ñuy sekk ay waxtaan fii at bu ne dafa ne duma ko sañ nag may ma tuuti ma tàggu kilifa gi toog ñaari semaine woowaat ma téléphone ne ma sëriñ bi tàggu naa ko wax ko yépp ne na naa dugg ca la naa naa dugg ci biir yëf yi bokk ci ndax fii laa war a bokk loolu moo ci dugal sëñ Maxtaar gannaaw bu mu tàggu sëriñ bi kon daal am ñu ndëgalu sëriñ bi mu gën ñoo soññ ci liggéey bi ci tàmbali nag ci sama téléphone woote ba arabu saoudite jot docteur mustafa Dieng mu ne Mohsen yow de miin naa la wóolu naa la kon bindunu comme nee nga ma Moulay ak Maxtaar ña nga ca comme ku tudd ak tudd waa diaspora sëriñ Xaadim je bii alaaji Moulay moo tax ma miin ko ma woo ko mu ne dugal ba ci biir te li indi sax mu ñëw senegal jamono yi dafa dagg bee ngir diaspora ngir ngir suñu programme bi ba ma ko waxee ne journée de lancement bi la 3 la la dagg bee ngir fekke ko kon loolu mosuma ko wax waaye naa ko wax ngeen dégg ko te bëggul sax ngeen dégg ko kon bu ñëwee fekkee programme bi jógee ba Italie ànd ak ñun ci programme boobu ba léegi kon jaar na bu toogee ma wax ko ni wax dëgg yàlla jaraw lakk waa ko yi ko saa poo yëg nañ ni suñu biir kon loolu laa doon junj rek ci ubbi bi wan ni loolu moo boole sirilu Touba ci li nga xam ni mooy ko sàpp la ca des nag incha allah daan ci ñëw ak waxtaan wi ci alaaj Idrissa ak yañ ci war a demee dañ ne nag ganu suba mooy dalal gënu ngoon te ñoom bu nu ñuy fii yàlla taxawaayu yitte yi nga xam ne yëg naa ko war xam ne war nañ koo def moo tax ma woo leen ci ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di leen jaajëfal ba ñu nuyoo sëriñ bi sànq ci jumaa ji maa ngi koy wax seen taxawaay bu rafet mu ne loolu moo leen war kon nag wax dëgg yàlla kontaan nañ ci jàppale bi ngeen di jàppale kon alaaji bàyyi laay ah maa ngi lay delloo micro bi bismillahi rahmaani rahim wa bihi nastain wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw sunu jégglu ci jël kàddu ci kanam suñu kilifa bu tedd gi sëriñ maam Thierno Mbacke ni cheikh Mouhamadine muntaxa ñu ngi nuyu ñëpp di balu xaq tey bale xaq di am mbégte nag mu rëy ci turu Cheikh Mouhamadinil Muntaqa ànd ak mbokk yu tedd yi nga xam ni ñoom lañu lëkkalool ba mën a dalal gan yi yaatal leen muy alxaaji Moulay Seck sëriñ Xaadim Dia yore pèlerinage ci diaspora bi nga xam ni mi ngi ciy liggéey liggéey bu am solo ndax liggéey ba mu fay liggéey euh, bari na ci ñoo xam ni ci ndimbalam lañuy jaare ba ponk lislaam bi ñu mën koo def waaye defin wa di rafet ndax euh, fi mu leen ci jaarale ci rafetal feggoo ci it ak docteur Moustapha Dieng di ku ñu miin tam nekkan fële mamlakal arabia saoudia wax dëgg yàlla doon fa liggéey liggéey bu am solo di fa jàppale kilifa yi bu baax ci nekk fa nekkoon waaye ci suñu biir it ci teewaay bi gis naa ci ñoo xam ne yit bu dee waxtaan ci xaj ñu teew fi ak euh, ñëw buñ fi mën a ñëwee rek danañ leen tudd muy al ak Murtada Bousso Bousso di ku ñu miin mu fegoo sëriñ bi it doyloo ko lool ci ay liggéey yoo xam dana ko koy liggéeyloo waaye fegoo it ak al imam Gaye muy sëriñ Iliman Gaye euh, ci noonu it ñuy jottali ay nuyoo donte teewul ci jotaay bi waaye suñu kilifa la ci xaj gi di suñu kilifa yi ci dëkk bi muy docteur Khadim Sylla di ko xam ne it euh, doon nañ jokkoo ak moom ci bi ñuy nos lii nii euh, sëriñ Mountakha Mbacké nag xanaa di ko dollee ñaanal ak a sant ci boole gi boole suñ jëmm ju xeebu gii ci liggéeyub Serigne Touba bi nga xam ne dox ba egsi ci moom muy liggéey bu mag di ko sant bu baax ndax jëmm ji dafa xeebu alhamdulilah ñu del jël lu day ni loo xam ni ponk lislaam la mu dugal ñu ci ñu di ci liggéey te bis bi mu ma njëkk a woowee mu ngi woo rakku sëñ Thierno mi topp ci moom muy sëriñ Cheikh Khadim Mountakha nga xam ni ñu bari moom lañ ma miinale Serigne Cheikh moomu ñu bari moom lañ ma miinale moom lañ ma gën a miine ci ci sëriñ bi donte ñépp nag ñoo ma jàpp ñoo ma téye euh, mu woo ma ci gàttal ni doy nga ma ci liggéeyal ma ci loolu ak nam ko waxee ci kanam Serigne Cheikh muy seede ñu bari dañuy gis sama photo profilu WhatsApp photo boobu bis boobu la ma woowee di ma dénk lii kon loolu day mbégte mu rëy moo xam ni rëy na ci man te yéeme na lool maa ngi jégglu jeexital gi ndax mbir mi toll foofu di seedaloo rekk sëriñ maam Thierno loolu noonu doyloo gi mu ñu doyloo ci loolu nag moo taxit fu sunu jàng man di egg it taalibe gi moom daf ñuy gënal lépp ndax ci lañ jaar ba lu ñu xamit ñu xam ko fu ñu demit ñu dem fa loolu ñu sëriñ bi doyloo kon suñu demee ba mbooloo sosu ci luy gën a rafetal ponk bu islaam bii mënuñu caa dugg mukk wala ñu cay wax wala ñu cay def te amuñu ci ndigalam loolu moo tax bi nga xamee ni mbokk mi waxe na ko noonu yëgale na ko noonu noonu laa ko ko waxe ne ko jamono ji buñ ma dee tudd di tudd ci aju màkka sëñ Muntaxa Mbàkke kenn mënu ko jaa ñàkk tudd bu ñu ma dee tudd di tudd ci aju màkk yi fokk ñu tudd kon lu may def lu ne dinaa ko xam lu may dugg dinaa ko xam sunu bokk ci nag bokk ci ca bis ba mu bañ ko sosee ak ka koy jiite ña koy jiite ak bokk ci mu sosu ba am fukki atit ñoo yem ci ñun ndax sëriñ bi lislaam moo ko ñor te dañuy alquran day wax ni kullu xisbin bi ma ladayhim farixoon kon sëñ bi islaam ji ne ci biir loolu moo ko ciy daaneel ponk islaam bi ñu bëgg a rafetal loolu moo ko ciy daaneel kon sunu dugg ci biir sëñ bi yëg ni ponk islaam bu boo xam ne jaamu suñu borom la suñu borom digle ko ñu koy def mbooloo woote ni dañ ko gën a bëgg a rafetal sëñ bi bu ko yëgee jàpp naa ni nii rek la ci war a mën a doxe kon loolu mooy sabab bi tax nu bokk ci ci ci ci mbooloo mi di dalal sëriñ sa Gueye mi nga xam ni moo ne ci bopp bi ànd ko mbokk yi ngeen dégg ñu tudd ñenn ci ñoom ak historique gu création beeg lépp yaakaar naa sëñ Mohsin gaaral na ko kon di leen dalal fii ci Touba ci turu xalif général des murit di leen fésalal mbégteem ci ñëw gi ngeen fi ñëw ndax biñ ko ko yëgalee kàddu yam ñu wax jottali woon nañ ko xaj na xaw fan min al itaala mooy tax duñ mën a dugg ci ay détails ndax suñu kilifaa nga fi ngi fi te baaxuwuñ sax di guddal ay wax ci suñu kanam yi kilifa moo tax rek kàddu gi dalal gi dafa mënul ñàkk waaye di wane ni COSACO euh, ñëw bu mu ñëw tuuba di yaatal ci seen i liggéey ak xamal nit ñi nit aj buñ ko dee wax ak jaamu yàlla moo tax ñu koy wax kon la cay diine ñu xool nañu koy rafetalee ba bañ xool côté boo xam ni côté lu cay gañe ci alali àdduna loolu lañ ñu expliqué ni moo tax ñu sos ko ba la cay diine ñu koy rafetal képp koo xam ne da ngay jël ay nit di leen yóbbu màkka ak noo sosee mbir mu ba di leen yóbbu ñu tegu ci loxo yoo xam ne ñu xam diine la ñuy doon ñu xam lislaam lañuy doon ñu xam njàngalim aj la ñuy doon ba mën ko jaarale ci côté diine bi au lieu que rek mu doon loo xam ne lu ñuy wute ji alal lay doon kon euh, xam naa euh, sama kàddu daal du mën a du mën a gudd ndax sunu kilifa dafay nekk te des na ko jox kàddu loolu moom mooy doon kàddu nga xam ne mooy doon kàddu sëriñ bi ndax euh, jamono jii ngeen contexte bi ñu toll dafay contexte bu difficile lool doy waar lool waaye sëriñ bi seenu teewaay xam na ko ni ngeen ñëwee xam na ko président nuyoo naa ak moom si jumaa ji ginnaaw jullit ajjuma gi ñu euh, jox leen def ay kàddu yu am solo dégg na la ko sëriñ bi wax ci kanam imaam Mohsin euh, sëñ maam Thierno Met toog naag sëriñ bi waxtaan ci yéen sëñ bi am lu mu ko wax euh, wax dëgg yàlla loolu jàpp naa ne sëñ maam Thierno fu mu teewit teewal na jëmu ju tedd jooju te des na ko doyloo kon daal xam naa di sant bu baax. ñi nga xam ne noo ñoom laa tuddoon ci ñu nu collaborel nga xam ne ñoonu doon jàppale ci liggéey bu mag bii ak jëf yu tedd yi nga xam ne def ngeen ko ci dëkk bi ndax def nemmeeku ngeen ay barab yoo xam ni jëf ngeen fa jëf yoo xam ne jëf yu am solo la yoo xam ne loola lépp ci liggéeyu sëñ bi nag la ndax barab bu ngeen dem rek barabu sëñ Muntaxa la kon loolu it am nañ ci mbégte lool di ko seedeel sëñ Thierno ni ko am nay barab yoo xam ne dem nañ fa daal jëf nañ fa jëf yu rafet yoo xam ne jëf yooyu yëpp sëñ bi rek lañ ko lañ lañ ko di jëfal te loolu moo sababoon seenu ñëw fii ci ci ci ci dëkk bi bokk na ci barab yi demit muy complexe bi nga xam ni mooy mashron sëñ bi di projet éducatif muy université bi euh, waaw kon daal xam naa ñu bañ a guddal euh, ñu yem foofu rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu maa ngi ziar seen ma sëñ maam Thierno di nuyu président COSAPO teg ci nuyu secrétaire général kosapo waaye itam dama bëgg jottali nuyu ministre de la santé et de l'action sociale monsieur Abdoulaye Diouf Sarr mu yebal ñu fii ak ay kàddu kontante mais yebal ñu fii tamit ah di renouveler euh, coppeel bi mu am si euh, xalif général des mourides sëñ Mourtada Mbacké lu tax mu bëgg ñu jiital ci nuyoo yi donc daf ko jële si volet santé di rappeler ni sëñ bi moo jël deux cent millions de francs CFA jiitu ñëpp si mbas mi su mën a jiitu sax day mel daam comme ci doon njëkkanteel njëkkanteel ñu ci kenn yor ko yéene ko bëgg dëkkam nag defal ko dëkkam jëbale ko si mbirum santé donc su acteur yu pèlerinage ak umra di ñëw fii Touba il faut mu boole ci élément santé ne dem leen ngeen téyel ma volet santé bi loolu nag lu bees ci ministère de la santé et de l'action sociale parce que fu ñu ne pèlerinage suñu gëstoo gis équipe médicale bi nga xam ne moo doon ànd ak pèlerin yi donc su pèlerinage bi sooxee dañuy gisaat ministère de la santé et de l'action sociale ànd ak acteur pèlerinage yi ñu xool fu ñu bëgg ñu jàppale leen ñu jàppale leen fa ngir mbas bi jóge ci dëkk bi. parce que ñëpp gis na ni que mbas mi dafay impacter économie bi te ku ne économie wax vraiment sookul dëkk donc suñu gisee ñu ñuy dimbale si sookul dëkk bi mën koo téye ak ñaari loxo di ñu ne daañ leen ñaanal daañ leen yóbbul si ay nit ñu ñaanal leen ñi suñu ñaanalee jàngoro bi dafiy jóge mais nit ñooñu suñu leen jàppee duñu bàyyi jàpp googu ñu jàpp nag depuis Dakar depuis le 3 mars moo ñu indi fii ci Touba te nag ñuy wax sunu kontante nekk fii ci Touba parce que fiñ fii ci Touba dañ fi toogal docteur Mamadou Dieng muy médecin chef de région te sa Diourbel waaye mu boole ñoog docteur Ndeye Maguette Diop parce que événement bi Touba la mu bëggoon Ndeye docteur Ndeye Maguette Diop lu mu ci war a taxaw yëpp mu mun cee taxaw docteur Ndeye Maguette indi mu sa Sarr mii toog sama wet nga xam ne mbirum communication ak information si wàllu santé moom moo ko yore si niveau district lu tax mu yebal ñu docteur Sarr parce que COSAPO dañoo jox benn volet bu important ne ñun dañoo bëgg wax ak nit ñi wax ak comportement nit ñi mais dañoo bëgg yéen waa santé suñuy wax comportement nit ñi ngeen jox ñu vocabulaire bi ngeen yaakaar ni suñ ko utiliser pandémie bi dina fi jóge parce que si biir communication bi ñu soxla dafa am volet vaccination bu ci am solo te ma bëggoon cee wax si biir euh, volet vaccination bi parce que soo gisee cible pèlerinage cible personne âgées yi dañ cee bëri plus de 60 ans mois de 60 ans avec comorbidité en tout cas dinañ daañu laax ay at yu xaw a am solo te nit ñooñu. ministère de la santé dafa bëgg toujours si condition yi mënta doon dem aj ak ñàkk dem ak dem si yeneen situation toujours sénégalais bi ànd ak wér-gu-yaramam te wér yaram si contexte bi dafa jaar si vaccination personnes loo tax ñuy ñaan euh, secrétariat général bu ko di la ñaan sëñ bi ñu woo sénégalais yi ba ku nekk mën a def activité vaccination ngir pèlerinage bi ñuy yaakaar te bëgg lool yàlla dimbali ñu si sénégalais yi mun a cee dem. su ci dem war su ci dem jotee ñu fekk sénégalais yëpp fekk pèlerin yëpp mën a pare donc loolu waroon yoo amoon euh, ay kàddu yu mujj bëggoon sàtte ñu ngi leen di sant di leen gërëm donc euh, di ñaaxaat nit ñi rek ñu ñu góorgóorlu vaccin yi baax la asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa ñi nga xamee ñooñu fekk si tey ca fekk si seen i mbokk fekk si seen i wëlëre fekk si seen i mbokk daara Euh, di rafetlu jéego yépp dangeen a baax waaye kàddu gi bi sëñ Moxtaar Seck waxee ñun ñëpp dugg nañ ci biiram fii noonu lañu ñu doxee Alaaji Idrissa baax na lool woo na ma ne ma kaay toog ci sama wet ma ne ko nag loolu kat dana doy war foofu sëñ Moxtaar comme toog na fi jàpp leen ne moo ñu fi nekkal ñun ñëpp ñun ñu ci des dañ leen a dalal waaye nag dañ leen bàyyee foofu yéen a fu war a toog sëñ maam nu Mbacke mi it bu teewee. muy sëñ Maxtaar muy man defe naa ku ci wax rek xam naa danga koy ubbil waaye nag dëgg-dëgg ñun niñ baaxoo doxoo fii ci yoonu kër sëñ Touba genn kilifteef la am mooy mooy teew waaye mooy joxe ndigal mooy wax kon nag ngeen xam ne sëñ Maxtaar sëñ maam Thierno mii nga xam ne mooy doomi sëñ Muntaxa di taawam moom la waxal li mu wax lépp man mii baatu tatagal yi may waaja a ci turam rekk ci laa koy wax ñoo ngi sant yàlla bu baax. cay dal xel bu baax a baax ci mbooloo mi ndax waa daara ji kat buñ dajaloo ne dañoo bëgg a ñëw sowe aj mooy seen alal lañ sowe waa daara ji nag ku ne xam na ne mooy kër yi ngeen tudd gis naa bi ngay lim alaaji Idrissa euh, wala boog ki lay njëkk a wax naan dem na ba jokkoo sëñ Moxsin ne jokkoo nga ak waa Touba ndax da bañ mu nekk yi kër tariixa waaye ngeen bàyyi xel ne boo limee kenn ku dëkk Tiwaawan xamal ne waa Touba duggale nañ ci biir yàgg nañ lool li ñu boole tasawuf moo ci gën a néew waaye deret moo ñu boole kon gis-gis boobu ñun moom lañ ci am maanaam El Hadj Idrissa Gueye mën naa teewal waa Touba mën naa teewal waa Tiwaawan mën naa teewal kër diine yépp di nekk ci biir réew mi loolu it mooy gis-gisu Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy sunu kilifa kon la ci seen xel dal bu baax a baax a baax a baax a baax. lu ngeen ñi ci defloo danañ ko def waaye nag ngeen xam ne moom xasaasiya sori nañ ko ci lool lool lool lool ndax lu ngeen def ngeen xam ne ñun ñi ngeen ko defal gis-gis boobu la ñu sunu sëriñ Cheikh Mahamadul Muntaxa ci lañuy jaarale ci la ñuy soññ guddeeg bëccëg alhamdulilah xel dal na bu baax ndax ñëw fii ci dëkk bi Touba di fi waajale aj Makka dal na xel li ngeen activité yu rafet yi ngeen def yëpp ci dëkk bi dalal na xel dalal na xelu sëñ bu baax ngeen xam ne sëñ bi ngeen ko defal dégg naa sëñ Muxtaar ko muy daara alxuraan yi ngeen visité bari na lool ca daara jee nga xamante ni seen mbokk mu xeebu mi doon na ci dara ngeen ñëw fa ak daara yi ci des yëpp muy université bu mag bii nga xam ne sëñ bi moo ko fi def ci yéen rek la ko fi defal muy yéen niti daara yi képp la ko fi defal yéen a ko moom loolu dal na xel kon ngeen xam ne sëñ bi jàpp leen ne mi ngi ànd ak yéen jàpp leen ne sëñ Moxtaar moom nga xam ne moo doxoon seen diggante ak moom de fu ngeen toll ak lu mën a doon dana ko yëg sëñ Moxtaar nag bu ci sëñ Maam Cerno mi nga xam ne mooy doomi sëñ Muntaxa ju mag teewee defe naa loolu war naa gën a dalal seen xel ngeen xam ne li ngeen def lépp yëg na ko rafetlu na ko moom ngeen ko defal depuis barki bu ba léegi ñii leen fi ñun ñii leen fi dalal suñu mag alaaji Moxtaar jiite ko sëñ Xaadim Dia sëñ Moustapha sëñ Ilimaan Gay mi nga xam ne ñaari mbubb la sol ndax maire Touba moo ko fi yebal moom la fi teewal ab conseil la moo ko fi teewal Touba donte nag bokk na it xam ngeen ne ci këru aj Màkka mooy ci waa bi waaye nag mbubb ñaari mbubb la fi teewe ak ñun ñi ñëpp ngeen xam ne ñenn lañ rek ñu bokk ci yéen sotti ci la rek ak def ci waaye daal ñëw ngeen seen këru bopp ñëw ngeen fas yéenee jëflanteeg ñoo xam ne seen i mbokk lañ ci aj yii ngeen fi woote yépp alhamdulilah di ngeen fekk suuf soo xamante ni su neex a bàyyi lay doon incha allah mooy ñëw ngeen ci dëkk boo xam ne bu deexe liggéey la aj la dëkk boo xam ne comme li ñu leen waxoon rek borom yitteem jépp moo doonoon aj makka ngir bëggum bëgg yonent bi sallallahu alayhi waaye gàllankoor yi xam ngeen ko tax na njabootam xam ko bañ sonn ci lool at mi mu fi jógee bi weer wi daata del si délégation bi gën a mag Sénégal jóge nañ fi dem aji ñàkk ci alal ju bare bare sëñ Fallu jiite ko te ñooña motti li yéene sëñ Tuubaa lañ doon defi moo tax bi sëñ Fallu demee Madina dafa tag ànd ak xaal bi mu jàkkaarloog borom yonente bi ci la waaye baytam yu siiw yooyu daf ko irtijaal xasatu ziyaarata nadbil karimi bila zaadin ani cheikh il xadimi daane kat jóg nañ waaye nag ah sëñ tubaa lañ ñëwal nag ndax sëñ tubaa sunu mag ñi suñu maam sëñ Mbàkke bu su nee na ñett yitte la bàyyi woon bi fi jógee ne nañ ko ko defal benn bi mooy nañ ko ajal màkka bi ci topp mooy jumaay tuubaa jumaa ji alhamdulilah noppi na bi ci toppaat mooy daara ju mag a mag a mag joo xamante nii comme la mu wax ci bayit wa rek bil Mustapha li banal qudduusu madrasatan biha yazulul aza wal jahl wal kabadu ci alhamdulilah def naa xëy ngeen fa tey ak daar yi ci des kon ñetti yitte yooyu la sëñ Mbàkke bu sene woon moom la sëñ Touba bàyyi ginnaawam ne nañ ko ko defal alhamdulilah yëpp mat na kon nag aj màkka bokk na ci kon ngeen dalal xel ne fii ajukaayu màkka la ñu yàgg a liggéeyal màkka la wax nañ biig rek ci waxtaan yi ne leen xali suñ xalifa bii Cheikh Amadul Muntaxa aji na ay yoon am na ci boo xam ne cinquante nangam la waxoon na ko délégation bi ñu fi ñëwee cinquante huit bi mu mujj def soixante quatorze la wala soriwu ko ndax ànd naag kenn ci suñuy waajur dem na fa ay yoon umra ji nee na rek njëkk muy nekk xalifa sëñ maam na doomam ji di taawam alhamdulilah te dana ajiwaat lu bare bare waaye ja bàyyi leen xel ne aji na ay yoon am na ci yoon woo xam ne fekk naa ko muy 2002 ca nee na ma am na aj gu ko jiitu woon. kon fii ñuy liggéeyal aj lañ maanaam am ngeen fi élément yu bare bare ku ngeen gis ci rek mën ngeen ko boole ci mbooloo mi ci xam ne ku bëgg aj la loolu mooy yitte yi gis ngeen sëñ Sidi Muxtaar li mu doon def nga xam ne yóbbu na lu jege juróomi téeméeri nit ci diggante bi nga xam ne moom la fi nekk ak la ko jiitu woon xalifa yëpp na la ñu doxee Cheikh Madul Muntaxa mais sëñ Muxtaar def naa bu leen déeyee ñi mu yóbbu diggante bi mu fi toog ak léegi mbooloo lay doon moo xam ne kenn xamunum toll kon daal sunna la su fi yàgg yàgg yàgg soo xamante ni alhamdulilah ndokk bi ngeen ñëwee fii ñoo ngi nuyu ministère de la santé di leen dalal bu baax a baax ñoom it li ñu wax rek ci waa aj màkka loolu la ñu di wax ñëw ngeen seen kër ñëw ngeen ci seen partenaire bi jiitu ci yéen muy Cheikh Modou Mountakha defe naa ne mbas mi fi ne moo ñor ñëpp ñëpp ci la ñuy wax waaye defe naa yéen ministère de la santé de xam ngeen ne sëñ Mountakha seen partenaire la ci defe naa mi ngi taxaw ci seen wet ba mu tàmbalee ba léegi ca jógu ci lépp lu mu xam ne dana fi jëlee mbas mi ci lay xëy ci lay gont gis ngeen ko ba alaaji Mohsin wax na ko ne maskam ba mu takk ci jumaa ji ku ne xam na ne sëñ Muntaxa de gëm na yàlla ku ne xam na ne li muy ragal eh, yàlla na fi yàgg lool dee bokku ci ku ne xam na ne li muy ragal dara dal ko da yàlla rek la ragal waaye bu boo gisee ba mbas mi amee ba léegi ba mu takkee maskam bi diggante bi ñuy wax sax naan corona jeex na xam nga am na diggante boo xam loolu la ñu wax Sénégal taxul mu tekki maskam ba léegi dafa kon rek di ko takk waaye loolu ab leçon la bu foor a foor mooy bëgg na nag ne moom ñit ñi ne leen jàngal kat royukaay la ci comme bu ko defee mbooloo danañ ko def moo tax mu di ko def tekkiwu ko benn yoon bu yàlla dogaloon li muy gisan bariwut jamono yi wàññi na ko tuuti ci loolu lépp it ngir bëgg cee dimbali nit ñi ak wa ci mbas mi ci la bokk moo tax bu ngeen ko te noonu la ci tënkoo tere ndaje yëpp ndaje yi fi gën a mag bokk na ci màggalu poroxaan am war na am bu yàggut nga xam ne moo koy jiite boole ci waaye gis ngeen demu ci defu ko màggalu kazu rajab di événement bu mag lool ay junni junni di ci teew dana nañ ko bàyyi màggalu daar musti suba la waroon na doon defe naa wala ginnaaw suba yooy yëpp dana maa ngi ñaan ngeen bàyyi ko kon waaye yéen waa ministère si la santé ngeen xam ne am ngeen liggéey waaye nag am ngeen ku leen ci jàppale bu baax a wax fii muy Cheikh Ahmadou Mountakha loolu nag bokkut ak yi nga xam ne moo nëbbu ak yi nga xam ne moo gën a yitteel lépp muy ñaan yi ndimbal yi yi daaw suñu yaram dafa daw surtout ñun ñi nga xam ne xam nañ ko dafa mujjoon joxe ndigal ñi quarantaine ci kër yi ndax ngi mooy bi mbas mi metti lool dane woon teggil na gouvernement bi ak waa sante ñi fi nekk teggil na leen seenu dund daan moom moo leen di dundal loolu def na ko diir bu yàgg yàgg yow colonel xam nga ci dara loolu kon na seen xel dal bu baax a baax yéen tam yéen waa santé ci xam ne Touba moom alhamdulilah ci njiitul Cheikh Modou Mountakha dana dana dana leen nekk ci seen wet bu baax a baax ndax loolu mooy li nga xam ne moom la ko diineem digal loolu mooy li nga xamante ni it moom en tant que citoyen bu nekk kilifa it loolu la gis incha allahu taala na seen xel dal kon loolu ngeen rafet ci njot bu baax ñoo ngi leen di dalal jàmm bu baax fii seen kër ñoo ngi koy jottali seen kilifa ga nga xam ne moo leen yebal ab Abdoulaye Diouf saar ak mboolem ñi ngeen àndal ñëpp ca di leen félicité bu baax a baax ndax ku ne xam na ne seen liggéey ñëpp a ngi ko gis jamono yi lii rafet na loolu ndax fi ne nii li jaadu lu am rek war ngeen cee bokk seetaan naa jenn jumaa ci Dakar la yaakaar naa bu yàggut am kuy xut xutba fi Euh, kiy def bayaan bi mooy waxtaan yi benn docteur taxaw di expliquer ba noppi imaam bi doog yéeg gis na ma ne gars yi ñii de dégg nañ diine lii lu baax la ndax fii bayaan lañ fiy def dañuy wax li xew ak lu baax te jamono juñ toll dara gënta jaadu leeral nit ñi feebar bi ak mi am mbas mi am ak nit ñu war a dem kon daal kàddu yu dalal lañ leen doon def muy mbooloo mi yëpp ci tuuru waa ñun waa dëkk bi nag dëkk bi nag gënuñ leen fee dëkk waaye nag wax ngeen ne ganuk suba mooy dalal bu ngoon jërëjëf wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil alamin di leen xamal ne daal dugg nañ ci ñun waa Touba nag laa waxuma la man waxuma la keneen waaye waa Touba dugg nañ ci incha allahu taala ci duñ ci génnaat jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay nuyu marrata thani ndax nuyoo bi sëriñ Muhsin nuyoo mooy suñu nuyoo dafa di lu mënul ñàkk rek waaye su mënoon ñàkk sax duñu wax ndax COSAPO kuréel la goo xam ni li ko taxa a jóg mooy dañu bëgg ak màkka saf sàpp ak yàlla wa atimmu lxajja wal umrata lillah du leneen li ñu bëgg mooy aj saf sàpp ak yàlla ba kiy yóbbu nit ñi Makka ak ci ñuy yóbbu ñu xam ni du voyage de noces loolu rekk ñu tax a jóg bëgg balaa nit ki di dem Makka xam farataam ujaaj bi waaj bay dem soo ko nee yan mooy mooy déwénati yi nga xam ni bu ci manqué sa aj yàqu mu mën ko wax ni al ihram saayu bayna safa wal marwa wuquful arafa tawaaful ifaada nit ki su xamee liy tax ajam du baax dina ko moytu loolu rekk moo tax COSAPO jóg ñun ñi ko yor suñu amul woon agrément amuñu agence de voyage du tee bu aj màkka jotee ñu wax ci ay doomi daara lañ ci réew mi lañu ñu dëkk kon buñ ñu agréé professeur Abdoul Aziz Kébé mi jiite aj ñu ànd ak moom ak ñi ko yilif ngir ñu agréé ñu amatuñu sañ-sañu tëdd di bàyyi aj ji di demee nu neex nit ñi seen bakkan yi lañu jiital ñu koy xeex dañu bëgg ñu xam ne màkka du ay noos màkka du ay du du ay nii laa toll màkka gi du xaalis te dañu jiital alal ñu bëgg ñu dindi alal ji jiital yàlla ci 2020 demuñu màkka ndax problème mu mbas mi am na ñoo xam ni seen coow yépp mooy chiffre d'affaires lii laa manqué millions million millions ya ñun ko COSAPO ñu bëgg ñun li ñu dal impacté ñu mooy Makka gi ñu demul raw rawdu Seyduna Muhammad ba ñu daan toog te tooguñu fa tawaaful ifaada ba ñu daan def di xool kaaba gi te xooluñu ko arafaat jëñu daan toog te tooguñu fa munaa jëñu daan nekk wadkurullaha fi ayaamin maadudatin fa man taajjala fi yowmayni fala isma alayhi wa man taaxara fala isma alayhi li man ittaqa yiw yooyu ñu ñàkk 2020 ndax problème mu mbas mi nit ñi di coow alal alal alal te alal almaalu wal banuuna zinatul xayaatu dunia jóg di ay doomi daara ànd ak ay jigéen ñoon madame Touré ñoon Adja Walimata Diop ñoon madame Tànji Góora ni góor ñi mel ni la jigéen ñi mel li ñu bëgg mooy aj gi saf sàpp sàpp sàpp ak yàlla ku bakkan jiital ñu fexe ba nga may ñu bàyyi ñu liggéeyal yàlla loolu nag dañuy jël suñuy responsabilité taxaw bi nu ko jëlee am kilifa yu nu wéeru ndax ku amul kilifa ku ànd ak moom su la tooñee foo koy koo koy booleel bi nu jógee sëriñ maxtaar li mu wax wax naa ko moxsin ni ko li ma daaneel mooy dégg naa la waaye ñun Tuubaa mooy kàddu sëriñ mu lay kàddu imam Mokhtar Hadji Moustapha ñoom Serigne Khadim dañ ni ñun amuñu lu ñuy wax lu Serigne bi wax lañu wax amuñu lu ñuy wax lu sëriñ bi wax lañu wax Serigne Mountakha jox leen ndigal ñaanal leen ni nekkal leen ñu fa tey di ñu saafante ci jumaa ji dëgëral na loolu ñaanal ñu wax ñu wax ju dal suñu xel kon yàlla na yàlla dolli guddal fanam li mu sémb yàlla ko àggaleeg sa ko sëriñ maam Cerno nag sa teewaay bii wallahu shahidun ala ma naqul gis nga bi ñu fi ñëwee ba tey bu nu gisoon sëriñ maxtaar mii billaahi doy nañu sëriñ muntaka doy nañu sëg sunu xol yi sedd na guy dara manqué yëg nañu ni dañoo génne suñu néeg dugg suñu néeg loolu rek la yëg sa ñëw bii nag dafa dolli yiw rek ziyaadatul xayri xayr nga ñëwaat toogaat ak li nga bàyyi ngir ndigalu sëriñ bi ngir dolli dalal sunu xel mbàkke jërëjëf mbàkke jërëjëf Cheikh Abdoul Fattah mission ko dab mu sëriñ Abbas liggéey bu ne mel moo ko dab démb mi ngi fi ba guddi ma ni ko demal ñu desal la fi ànd feeg wuutante mënu am ànd ga des na mu génn dem sa toogaay bii nag mbàkke dal na suñu xel ñun daal li ñu fas yéene mooy am kilifa ak ji tegu ci yoon lu ko nar a yàqu wax ci man raa minkum munkaran fal yuxayir bi yadi fa in lam yastati fa bi lisaani fa in lam yastati fa bi qalbi dalika adaafu liman lu nu mën a dindeeg loxo dina fi jóg ba lépp di yàlla lu nu mënul a dindeeg loxo yor suñuy làmmiñ di wax rek ba lépp di yàlla ba nu ci dara jàpp ci suñu xol ni lii neexuñu dem tëdd jàpp suñu ñaamul comme yegguñu foofu nag fi ñu toll ñu taxaw ci fexe ba nit ndax nit bu fakkat saloo daanu du xool fa mu daanu day xool li ko daaneel li ko daaneel dong lay xool góor ga daa toog ci mbooloo ba ci yàgg benn xale ni ko tëll pes góor gi di xool siis si am ko ko ne góor gi ki la pes xale bee la mu ni man seetuma ki ma pes ki ko yónni lay seet ndax xale bu toll nii fekk mag mu toll nii ci mbooloo pes ko am na mag mu ko yebal man mag moomu lay xool kon ñun li ñuy dox mbàkke ñu ngi ci am xel mu dal ci ànd ak yéen jotal nag mosuma ko wax ci jotaay waaye bii dinaa ko wax jotal nuyoo sunu baay alxalifa alxaaji muniru njëgal li tax ma tudd ko nag sëriñ bi sunu sëriñ la waaye suñu goro la te yonent bi dafa fonk goro ndax doomu xalifa bi njabootam la di suñu rakk di Zeynab te Zeynabu Njëgën moo jur xalifa gay mu jur ma kon sunu sëriñ la waaye bu suru goro la kon ci turu goro loole laa dugale kàddu gi waaye du Kosapo ja waaw keñ ndax comme waa Kosapo dama leen xam bu ñu dajee réunion bay détail pour ma xamal leen ni ca goro ga laa ko tudde waaye du Kosapo ja alxalifa alxaaji Muniru Njëgën mi ngi lay mi ngi nuyu xalifa bi di ko ziyaar di la ndokkeel di la ñaanal mbàkke ya yàlla boo jéemloo tële ñoo ngi lay sant nag sëriñ maam Thierno bëgg nañu lool ci dajeeg yow bëgg nañu lool ci sa toogaay bi wallaahi bëgg nañu sant nag ñii ñu àndaloon muy ñoon sëriñ Moulay man dama ko mujjee yërëm wax naa ko démb ma ni man Moulay dama koy xool ba ci yàgg ñeewantu ko moom ñoon sëriñ Maxtaar man dama ni leen yéen ni ngeen di topp tawe gan metti na du ngeen lekk du ngeen nelaw xaw ma ku déggul man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yukrim dayfahu waaye yéen de tuubaa dégg ngeen ko gan yoo xam nit ñi lay toppatoo du ñu lekk dan man dama leen di ñeewant wallahi alazim sëñ Moulay ak atam may gis ni muy dawee topp oto yi ma xool ba ci yàgg ma ne mbaax daal baax rek la kon yàlla na yàlla fay leen inna allah la yudiu ajral muhsinin sang bi daal waxal ñu sëriñ bi ñii mu ñu booleel day bëgg nañu lool te naa ko ko sànq sa jumaa ji sant nañu bu baax dara manqué wul nag lu mu ñu lu mu ci gis lu ñu war a joyante rek ñoo ngi koy déglu ndax ñun moom ci kilifteef dong la ñuy dox yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi jële fi mbas mi ba nu mën a delluwaat aji makka nuyu sama wëllëre wu fi ñëw di Serigne Ousmane Ndiaye sànq la ma woo ma ni ko maa ngi fi mu ñëw nuyu itam sama wëllëre di maam Serigne Mbacke mu Serigne Abdoulahad Baara Serigne bi mën a dee seedeel man lam yashkuri naasa lam yashkurillah sànq bi mu yëgee ni maa ngi fi lu ne la togg ci ay teraanga ni ma da nga war a ñëw añ ci kër ga ma ni ko mën de ci ndigalu sëriñ bi laa ne te fii ñu ma dalal yaa ma fi ba mu ni ma waaye na kon du tee ñun sunu añ ñëw lu ne mu togg ko indi ko sëriñ Maxtaar ko recevoir teraanga jooju bu ñu ko defalee nga teew di kilifaam daañ la ko seedeel mu yegg ci sëriñ bi yàlla fi yàlla dolli jàmm yàlla na fi yàlla dolli sutura su naal yëpp yàlla na ko yàlla àggaleeg saba ngeen baal ma àq nag comme sama sëriñ sama goro laay waxal moo tax wax ji tey yaatuwul wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi lii ñëpp maa ngi ziar bu baax a baax a baax waa COSAPO bi yëpp ak délégation bi nga xam ne ñoom la ñu bàyyiwuma kenn maa ngi am mbégte bu baax ci toog yéen ci jataay bii ci ndigalal sunu kilifa Cheikh Mouhamadul Mountakha. nga xam ne am na ñu yàqin ci ne amoon na yéene toog fii amoon na yéene itam ba ngeen ñëwee ci dëkk bi ba nëgë ni du ngeen woon tàggoo ak moom benn minute lépp lu ngeen def mu ànd ak yéen fi ngeen ko fekk nag ci ak mag fekk ko fi ci tolluwaay bu fekk ko fi ci ay yitte tax na dama ko bëggee mënu ko waaye mu jàpp ne nag am na ay ndaw yoo xam ne yaakaar na ne bu leen booleek moom bu leen booleeg ñoom seen xool dana set la ca war danañ ko def loolu moo waral mu boole nag ñi nga xam ne ñoom ngeen fi fekk ci dëkk bi te ñuy ay ndawam yor ab taxawaayam rawatina kenn ci ñoom nekk ci biir aj gi wala ñaar ci ñoom nekk ci biir aj gi muy Mouhamadul Mokhtar bi ngeen ko waxee léegi ci bi ngeen jëlee kàddu ak bi mu jëlee kàddu li mu ci wax muy lu leer lu rafet sëñ Moulay mi nekk ci seen biir Mouhamadul Mokhtar bu sa nekk ne toog sëñ Xaadim Dia nekk ne toog sëñ Ilimane euh, Gueye. te ñoom ñëpp ma xam leen ci aj gi ci ni ko sëñ Mourtala bu soo waxee léegi ci yoon yi nga xam ne jot naa ko dem ci ànd ak yéen ci siyaare boobu muy lu am ñu am ci mbégte lool nag ci kaw doomi daara yoo xam ne ni ko sëñ ni ko sëñ Idrissa waxe léegi euh, doomi daara yoo xam ne dañoo dem ba gis ne benn ponk ci ponk lislaam yi dem na ba bëgg a dagg daay loolu bu ñu ko waree jubbanti kenn waru caa jiitu doomu daara kon loolu bu ngeen taxawalee lii ngir loolu doon seen yëlla def ngeen lu ngeen war a def def ngeen farata def ngeen lu mat sëkk loo xamante ne lu jaadu la lu war la yàlla neen ci yàlla dimbale taxawal leen ci ba di ngeen ci bëgg lépp ngeen am ko sëriñ bi itam defe naa ne sëriñ wax ji mën naa mën naa gàtt mën naa gàtt sax day gàtt itam ndax euh, wax yi yëpp yi ko jiitu yëpp rafet yëpp baax na yëpp jub na yëpp leer na amul dara lu ci mat a leeral li sëriñ Idrissa wax président Idrissa wax leer na amul benn luñ ci war a daanaka teg Mourtala bu sa régime bi mu def ci aj gi ak waa Touba ak diggante sëriñ bi ak njabootu sëriñ bi li nga xam ne def nañ ko ci aj eh, tàmbale ko ci sëriñ Touba ci niséram tàmbale jaar ci Cheikh Mahamadou jaar ci kilifa yi nga xam ne ñoo topp ci moom ba ci Sëriñ Muntaxa yoon yi nga xam dem na ko ba ci suñ jëm yu xeebu yi sax yoon yi nga xam dem na ko loolu résumé la boo xam ne leer na nañ ñi kon fii moom alhamdulilahi rabbil alamin ku fi toog di wax aj daañu la déglu bu baax te loo fi waxit daañu ko xam kon nag jërëjëf taxawaay bi rek mooy di ci am solo te li ngeen wax itam ci wàllu tariqa tariqa li mu doon mooy suufi yu ñun ñëpp suufi yu lañ bokk tariqa suufi mu lañ bokk ak tasawuf lañu bokk ñun ñëpp yoo xamante dañ caa fekk kilifa yu baax yi nga xam ne ñooñ jiitu ju nekkoon ci li ci dox doxin wu rafet li ci def doxin wu rëy boole ci seen bopp tàqale wuñ ca benn yoon kon loolu itam na ngeen xam ne ni ñu ko waxee ñoom dama koy confirmé rek dama koy dëggal rek Moutalla wax na ko euh, Maxtar wax na ko waaye loolu dëggal rek laa ci am ndax amul dara benn tomb boo xam ne jar na cee leeral amu ci bu ba suñ jamonoy tey nag jamono am lu mu indi nit xam ne ñoo ne ci mbedd mi cee indi ay wax jar nañu jógaat taxawaat àndaat boolewaat ko yeesalaat ko ñëpp xam ne doxin wi wenn na daara ji ji la amul ñaari daara daara ji jenn ji la ñoom ñëpp di ñuy wax rek mooy tasawuf rek lañ moo leen tax a jóg tasawuf nag wax ko walla wala wala wala ànd bi wala boole bi wax ko jëf ko ma ko gën a wóor te jëf ngeen ko bis na tey ñi nga xam ne la ware di ni itam nag sama président suñu sama goro wax na ko wax na dëgg noonu la demee euh, waaye danaa joxe benn exemple ci moom ci boole gi may wax ndax ñëw naa kër bu mu fekk ma fa ànd ak Abdou ànd ak euh, Assane euh, naa seet Dieng ñëw seet si ma fekk ma fa ñu waroon na ànd dem Njaasaan ci sëñ Muxtaar alkunt yàlla dof bi ma demee ba war a dem am gàllankoor bi mu ko yëgee moom dafa dem ba foofa mu jël fa sama kàddu demul Tiwaawan demul Njëgeen dafa dem ba mu si ba Njaasaan mu jël fa sama kàddu man loolu ak boole la goo xamante ne xam na li ñu seq lu mu doon kon maa ngi ko ciy gërëm bu baax loolu moom dama ko ci gërëm ci wàllu boole gi ak jaxase tarixa yi ni ñu war a ànde ci loolu laa koy gërëmee sax waaye du ci ngoro gi dong kon maa ngi koy sant bu baax di ko di ko xamal ne sarak mi ngi fi sa sœur mi ngi fi di eh, taxaw kem kattanam ci wetu sëriñ bi ci wetu njabootu sëriñ bi ni nga xam ne noonu la waree di ko sàkkul ñaan ci yéen ñëpp ngeen def ko di niru Cheikh Mouhamadou Mounir moom mi nga xam ne itam moo nekk foofa eh, dégg nañ sax xabaar bi nga xam ne moo am ci fan yi muy doomu sëñ Abib jooju nga xam ne moo wàccub liggéey moom itam ñu ngi leen koy jaal ñëpp incha allahu suba rek bu may dem ci mbirum Nasir moomu bëgg damaa dem ba ca kër ga ma siyaare ko sëñ Muniru siyaare ko sëñ As waaye maa ngi la koy siyaare yow ci jotaay bii eh, nga xam ne di ñaan suñ boroom yërëm ko xaral ko àjjana te wuutal wuutu na ci ak njabootam ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barkeb lépp luy lu baax ñi ngi nuyu nag waatu Touba leen soñ ñoom itam ndax itam di taxawaay bi rafet na ci seen wet te leeral nañ ko itam waaye alhamdulilah bi nga xamee ne xam nañ fi ñu jëm ndax sëñ Maxtaar bi ko sëñ bi woowee wax ko loolu wax wax ko loolu moom itam taxawaayam bi ñëpp gis nañu ko euh, mu mel ne euh, ni mu ko waxee léegi euh, jàpp jaxasoo nag njaboot bi ñëpp ndax amul lenn lu ko sëñ bi wax te du balaa dem këram dana jaar ci man jox ma contrat ni ma sëñ bi wax na ma di sëñ bi wax na ma di sëñ bi wax na ma loolu yaram ak may na ko teggi na may na ko xam-xama may na ko bultoo nag loolu mën na ko bañ a def kon teew gi mu teew seen biir na nga xam ne teewal na sëñ waaye teewal na sunu jëmm teewal na jëmmi njaboot gi yëpp teewal na yoon wi yëpp kon nag alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant bu baax sëñ laay mii di mag moo xam ne di ngeen wax ci moom dëgg la mag mu woyof mag mu baax mag mu am diine mag mu am yitte moo xamante ne mi ngi ci liggéey bi saa su nekk kon nag ñu ngi ci sant bu baax di gërëm ci seen yoon wii di gërëm ministre de la santé di ko ziare di ko wax ne ko itam ni ko Mourtala waxee rek def na résumé bi yéen itam. président Idriss def na reçu bi li nga xam bi def ci mbas mi boobaak léegi loolu du ma ci delluwaat ni ko suñ mox seen waxee itam loolu du ma ci delluwaat léegi kon ndax leer na amul lu ñu ci war a leeral xanaa rek di xam ne noonu ma ko defee itam alhamdulilahi rabbil alamin taalibe yëpp ànd nañ ko ak moom taalibe yëpp toppandoo nañ ko ci te li ci kanam itam insha allah dana gën a rafet dana gën a baax danañ gën a wattandiku ni nga xam noonu la mel ñàkk yi itam ñëpp danañ ko def insha allahu ñi xam noonu ngeen ko bëggee ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp docteur Moustapha Dieng gis nañ mu nekk ci seen biir moom itam noonu la noonu la kon li fii daal amul lu xejj amul seen lépp naa ko bokk maa ngi jégglu rek boo gisee ma baral ko nii sax dañuy waxtu yi bu ma déggee nottu gi naru ma woon sax euh, kii waaye nag damaa xam ne ginnaaw lu mu néew néew waxtu yi mën na juróom-benn fukki minutes yu tegal as lëf te xëy na euh, mën naa am wax ji du ëpp juróomi minutes mbaa fukki minutes loolu moo tax sax ma ne maa profité waaye ñu ngi jégalu sax ci diggante si ñu toog di ko wax te gannaaw noddu gi loolu yëpp ñoo ngi koy jégalu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan séjour bi bu ko benn séjour gën a baax na am rek tiyaaba na ànd ak yiw fees feneen fu ngeen dem itam na ànd ak yiw gi xam ne itam yéen a ngi ci taxaw itam yàlla ci yàlla def tawfeex dafa leen ci barke ba fu ngeen bëgg muy àgg fa yegg fa di ñaan doomi soxna yépp ñu ñëw fekk leen ci ñu ànd ko te lépp tegu ci yoon jërëjëf maa ngi leen di siyaare di leen jot di siyaare sëriñ bi ne bu baax a baax a baax xamal leen ne bu fekkoon ne li wolof di wax mbëtt ànd ak xeñam kon fu ngeen taxaw di ngeen ko gis waaye nag ni jamono ji demee xam ngeen ko bi ngeen ko gisee ci maa ji dem xam ngeen na mu nekkute ak yéen ba ngeen fi ñëwee ba léegi waaye kon mu jox nu ndigal ñu ànd ñëw ànd ci jataay bi fekk na joxe na ndigal njaboot gi ñëpp ñu ñëw ñu sëñ Maxtaar sëñ Mulaay ak ñi nga xam ne ñooy régu ci wàll aj maa ngi sant bu baax di gërëm tey jéggalu bu baax a baax wasalaamu aleykum wa amin amiin jërëjëf Mbacke